naafila onze guddi fukkeel gi ak benn ci weeru koor sopp nañ ko ci julli ñeenti rakaa rakaa ci nekk mu jàng faatiha benn yoon jàng inna anzalnaahu fi laylatil xadri juróom ñaari yoon jàng xul yaa ayyuhal kaafiruun juróom ñaari yoon bu salmalee mu wax لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم juróom ñaar fukki yoon maanaam fois bu pare mu julli ci sang bu tedd bi sallallahu alayhi wa juróom ñaar fukki yoon des na ko jéggal bàkkaaram yu njëkk ak yu mujj te yàlla dana ko musal ci yii di ñëw dana ko musal ci balaa ak fitna ak xiif ak ràgg ak saddum jinne te it dina ko musal ci mettitu dee te dana tàbbi àjjana te deesul bu ko xisaab ak yeneen ak yeneen mbokk yi ku ci bëgg yeneen i leeral dangay dellu ci xurratu ayni bu Serigne Souhaibou Mbacké page 145